Ousmane Sokh Jini Sara moom ak Robert Ndiaye numéro 2 oh 100 kilos ndeysaan Robert Ndiaye numéro 2 Thiès Papa Ngane Sokh Kaolack away nder Papa Ngane fo Robert Ndiaye numéro 2 nee naa leen ke naa leen jompo belalum jompo ke waaguna jompo ke wiiduna That's our team. Paponga Soso, Robert Jan numéro 2, Abou Fan, Amafan. Amafan. Paponga Amafan. Sawa xolu xaj. Deres Barok. Ay Jini Sara. Jini Sara. Hagarab Jini Sara. Hagarab Jini Sara. Amafan. Ama Baldé Père Ndiaye 2-2 Thiès Thiès Kaolack 2-2 de Diougane Toubacouta Fodé Diakhé oxo Papa Kan Sosokh a ngoog 2-2 ndeysaan Papa Kan Sosokh a ngoog xarit mu ngi fi ka bugo ma fi fa Toubacouta ndi ay Pape Ndiaye ale garidi ale garidi soy Fama Faye yaa seen Papa Kan ne ko nee na Toubacouta ñëwal Papa Ngane génnal sa sa poids jeex na bàyyi Lamine Diop alliance rajaxe bu Kër Fodé ndeysaan rek ko assir ambulance bu Thiès wala ambulance bu école Mor Fadam Papa Ngane génnal bàyyi rajaxe ñëw Papa Ngane xa loola caw Papa Ngane xa loola caw ndeysaan hop hop hop hop doonil aloko aloko ajuma Juuf alola jili sara dasan jege problème jege din alola ande ande ande defet andiran andiran dasan alola chawten pabangan alola dasan asudoga ajuma ju khasudan dasan ajuma ju khasudan ajuma ju khasudan dasan Hallola Hallola Hallolarda Papongal Soso Jare ulul Jare Halol ndeysaan Jare Halol amé rek mais les finales la de si biir finale yi de waaw final si biir finale yi la 2-2 remontada bi ah dañuy xool la ñuy xool kan mooy kan mooy génn waaw ah. Papa Ngane. waaw wane na boppam. wane na boppam. Bad Boy Alliance Badara internet. wane na boppam wane na boppam. waaw léegi nag. ñaari poids lourds ñaari poids lourds yi. Toubacouta. ak rajo xam